bu fekkee am na leneen lu yees jëmale ko rek ci arrestation ki nga xam ne nag moo di waykat bi di euh, Sidy Diop alors moom mm-hmm. euh, nu woyal ba tey nu daal di dugg waxtaane li nga xam ne nag euh, moom mooy sunu ponk bu njëkk ñeel ci li nga xam nag moo di xibaar yi nu fas yéene ko doore ak libération nu mu daal di xëyee tey ji duppee ko document exclusif et de la presse 2023 sur la euh, de de l'argent daanaka ñu si bëri euh, ñu ngi ko doon waxtaanee barki démb rek ginnaaw ministre bu defee ab conférence de presse euh, gis nañu aide à la presse bi nu mu daan nu mu daan séddale bi nu mu demee woon tey ji nu xëy dikk ak ñun ci yeneen révélation yoo xam ne daanaka moo gën a yéem Sénégalais daanaka si liste bi nga xam ne moom laa yor. Mhm. bëri na si ay journaux yoo xam ni kenn xamu leen. Mhm. gis seen parution doxunu ba gis leen. di moo di moo di seen subvention boo xoolee ci liste bi nga xam ne yor naa ko gis nañ fi éco euh, écomédia mhm. gis nañ fi enquête publication gis nañ fi train de vie al ouma euh, gis nañ fi patrimoine mhm. réew mi bijou bu fekk voilà très bien euh, list bi moom ngeen di gis noonu mhm. gis nañ fi témoin al minbar aussi gis nañ ko fi mu nekk ay journaux yoo xam ne vraiment man mosuma ko gis mais aussi am na yeneen journaux yoo xam ni daanaka dafa dafa dafa jaaxal sénégalais te booy xool kenn ku nekk koppar gu gu gu gu am solo nga doon jël. boo xoolee Almin Bar bi nga xam ni moom laa junj léegi euh, mille la daal di am en 2023. Mhm. patrimoine 1 million al ouma. cinq cent cinq cent mille francs train de vie un million euh, enquête publication huit mhm. millions euh, Ecomédia douze million euh, Sud Soir 2 millions euh, Walf Quotidien 6 millions donc Walf moom euh, c'est bien normal mu mu daal di jot li nga xam ne nag moo di subvention alors mhm. tey jii moomoo nan nga mën euh, jàngatee yi yi yi lay xibaar daanaka sax yemul foofu ndax Teral Quotidien 1 million L'aurore du Sud 1 million mhm. PME Afrique Africa Press ñoom ñaar ku si nekk mille en vedette mille équipe type 700000 francs CFA. Mhm. GL Média Afrique Éco 2 millions euh, monde de l'éducation Liberté Info l'info Direct Actu PME Info euh, Al Masra presse arabe sénégalais daanaka presse bi yow man maa koy soog a dégg. Mhm. franchement euh, Dakar Minute arabe euh, Al Hadas Dakar arabe Al Watan moom moo nan nga mën jàng seen mbir yi. <laughs> man presse yi fan lañ nekk ak yan journaux la ak. te xanaa même bu dee cinq personnes sax. di leen informer ci réew mi ñu xam ne kat alwatan moom fa la ci réew mi. al alwatan. waaw <laughs> alwatan alwatan moom fu mu ne. <laughs> yow mos ngaa dox si kiosque ba fekk fa alwatan. mukk mosuma mosuma ko gis si rajo. mosuma ko gis aussi eh, ci ci ci presse en ligne bi. c'est alwatan donc lii lii xew moom. c'est inédit quoi franchement maanaam euh, lu xew lu nekk rek ba nga jàpp ne. bi gën a grave <laughs> nga xëy gis beneen boo xam ne mooy gën a yéeme la dernière fois bi ñu bii euh, euh, ministère de la communication génnee lu jëm ci aide à la presse bi. da nga gis ne déjà y un problème. Mhm. mais lii génnaat tey xoolal rek somme yu bëri yii nii. ah vingt vingt millions deux cent deux millions cinq cent six millions cinq millions ñu jël ko doon ko doon ko séddale li nga xam ne moom moo di euh, presse bi damay bañ ñenn di def amal amalgame. Mhm. en fait aide à la presse pour ñenn quoi une une minorité peut-être ñoo xam ne duñ duñ comprendre. aide mhm. à la presse dara dara dara newu si maanaam état la boo xam ne nii dafa bëgg a soutenir presse am. Mhm. donc aide à la presse moom ci ci ci principe bi. Mhm. lu baax la. lu war a am la léegi nag ci façon bañ koy defee foofu la problème bi di posé mooy aujourd'hui si la ñun bu ñu naxante quoi xam nañ li xew lan la. li xew mooy man moomu damay toog quelque part. Mhm. mais ma toog ñu ne ma xaalis bi kat dañ ko war a génne et à la presse la man du ma du ma du ma du ma patron de presse. mais à partir du moment où ma dégg ne lii xaalis la bu ñu war a jagleel presse yi man dana fexe nekk patron de presse moom. Mhm. léegi ci saa si mais si saa si laay créer sama presse bopp ne leen man maay Momo TV wala Momo FM. Mhm. parce que forcément xaalis boobu war naa wut pexe yoo xam ne moom laay def pour si. et fépp la. même ci convention yi c'était comme ça da ngay gis koo xamante ne nii mais yow yaay DG wu euh, LONAS par exemple. Mm-hmm. ma ñëw yow bon dil la ko en fait yow man sama wàll faa mu jël ko parce que sa xarit la mm-hmm. léegi damay ñëw nga ne ma léegi am naa fi ay convention yoo xam ne presse la dinaa la dugal ci biir su ko defee man. mën naa dem créer sama benn page Facebook créer sama benn chaîne YouTube tuddee ko Momo TV après Momo TV bénéficie de 60 millions wala 10 millions wala 15 millions par par par année uh-huh. mu nekk ci aide aide à la presse bi donc pour man ay xeetu doxalin la yoo xamante ne nii gars yi moom lañ fi nekkee woon même ci euh, conseil économique social et environnemental. Uh-huh. te rapport yi defe naa génn na loolu. génn na loolu du ñàkk ne am na enquête yu ci def. Uh-huh. mais ci conseil économique social et convention yu doon signé mais am na tour yoo xamante ne yaa ngi wax ay al axleeg ay xawma lan ak lan. Mm, alwatan <laughs> alwatan. <laughs> alwatan arab arabe Sénégal. Uh-huh. Euh, Dakar Minute arab waaw léegi yow. alxadas alxadas léegi yow yooyu yëpp ñun xamuñu fu mu fu mu ne ci biir réew mi. pourtant pendant ce temps là. Mm-hmm. mais am na benn xeetu euh, presse boo xamante ne nii même bu dul presse arabe bi. Mm-hmm. si convention wu conseil économique social et yooyu. Mm-hmm. presse yoo xam ne mosoo leen dégg ci biir Sénégal am na ñoo xam ne nee nañ publicité lañuy ñuy def. kenn xamul maison de presse yooyu donc affaire bi lenn la woon mooy da ngay woo say nit. par exemple diw ak diw ak diw samay xarit lañ. Euh, dinaa jox presse bi mais ñoom it dinañ laalaale léegi ñoom jotaal seen wàll ils sont pas patron de presse mais dama leen di soppi ay patron de presse pour que ñu mën bénéficier wu ci xaalis bi su ko defee moo wooyee Silla ne ko yow sa bos noo koy tuddee mu ne ma man sama bos xaama tuddee ko Silla TV wala Silla mane ko voilà bind si la quotidien mu jot si millions yi keneen ak keneen say xarit yëpp nga def leen defal leen noonu mhm. loolay waral nga dégg ay tur yoo xam ne xamoo fu ñu jugee ñi ko moom duñu ay journaliste mhm. lii mën nga ko méngale ak ñi doon recruter nit yoo xam ne dañ doon nekk seen ay kër tëdd di nelaw mhm. c'est la même chose parce que kii yorul journal yorul rajo yorul télé nga fexe moom ba aide à la presse bi nga xam ne waa presse bi ñoom ñoo ko moom moom mu mën di si bénéficier wu toog fi mu toog xaalis bi di ko fekk si donc pour man li si war bi ci war xam naa réew moom lu ñu fa war a enquête bëri mais mais moom keroog si si état la presse boobu gis nañu mm-hmm. benn benn top ten bu génn. Mm-hmm. mais ci suuf dañ si def autre. Oui. est jàpp nga ni autre bi mooy liste bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee nii. bon je pense pas parce lii bokkul ak loolu. Mm-hmm. en fait lii. aide à la presse defe naa bu deux mille vingt trois la. parce que par exemple da koy retrouver waat fii am na yu bëri yoo xam ne tur yoo xam ne mi ngi Euh, beneen beneen beneen liste la mais man li ma jaaxal mooy mhm. euh, tur yi may dégg yëpp léegi ñan ñoo ko moom en fait boo demee ñu ngi si biir dëkk bi toog duñu déglu ah kan ah. moom moom presse yi ñu ñu nekk di ñu wax ak journal yi ñu créé nga xam ne ay journal fictif la di ñu gëmloo ne euh, ñii ñooy presse Sénégal bi ba ñu war a bénéficier ci millions yu bari yooyu parce que man bi moo gisee dama ne xëy na huit cent millions yu ñuy wax ni teq nañ ko ci état la bi xëy na fii nañ ko mën na nekk on ne sait mais xaalis boo xam ne dañ laa kaa dañ la ko dégg ne la mm-hmm. da ko war a séddale presse bi nga séddale par exemple nga am ay Sen TV TFM Walf Fadjri mm-hmm. journal xaw ma l'Observateur ñeneen ak ñeneen groupe GFM ñeneen ak ñeneen léegi nga war a séddale xaalis boobu mm-hmm. mais boo séddalee ba ba jox ñee ba noppi mu des est-ce que doo sàq pexe foo ko dugal mooy di nga créer presse boo xam ne existé wul pour xaalis bi mën a fa dugg donc yooyu yëpp xam nañ ko ci biir réew mi et bëri na Euh, gars yi stratégie wu sàcc yoo xamante ne ni amoon nañ ko. Mhm. d'ailleurs huit cent euh, millions yi ngay wax laaj na ñu wax ñu fan la dugg ak nan la demee. parce que parce que man liste bi ma yor nii subvention yi bu ñu ko defee pare mi ngi toll ci cent quatre-vingt-dix millions. Mhm. donc lii xaajul sax àgg ci li nga xam nag moo di moo di li ñu doon jot du sax xam nga bu doon à la presse kese li ñu doon jot dafa bëri maanaam. xeetu aide à la presse yi. Mhm. nañu xoolaat sax est ndax benn aide à la presse la bu ñu génnee par at. parce que soo génnee aide à la presse bi nga génn yenn subvention yu ñu doon génne mhm. et eh, yii peut-être aide à la presse mooy li may wax ni jaar na si yoon mhm. mais ni ñu ko daan defee jaarul si yoon ah, parce que c'était une manière pour encourager yenn chaînes yi ñu gën leen a jàppale moo doon waral nga toll période boo xam ne damay joxe exemple bi à chaque fois dañuy xëy suba dëkk bi tàq mhm. ñee teg musique ñee teg ay concert u Céline Dion ñee teg ay dajju xam nga xeetu doxalin boobu lii moo lii moo ko waral mooy c'est-à-dire gëmloo leen sénégalais yi que lépp mu ngi dox ci biir réew mi nga gis mhm. yenn chroniqueurs yu toog ci chaîne de télévision yi mhm. ne bon réew mi li fi xew yëpp baax na ñii ne Ousmane Sonko nañ ko tëj ci kaso bi moo tere mu am jàmm mhm. ñii ne ndaw yi ku génn ci mbedd mi bu ñu la reyee yaa perte xam nga ku dee ci mbedd mi yaa perte yooyu yëpp dégg nañ ko fi donc loolu euh, ay imam sax dégg nañ leen ci biir réew mi ñu dem jusqu'à dire imagine au moment où ay nit di xeex pour seen dëkk ñu leen di rey nga ne non ñoom ñi ñu rey bu ñu dee safara leen jëm Mhm. pendant ce temps nit ki rey nit moom bu dee fan la war a jëm. ak jar na fi donc loolu li ko waraloon mooy xaalis bii ñu daan xëpp ay nit ñoo xamante ne nii buñ la xëppee xaalis ba nag suñuy rey nit ñi sax da naan nit ñi ñoom ñoo am ah. mhm. ki dee sax yow da nga koy jox toor bàyyi ki dund donc si je comprends bien fi nga bëgg a waxee mooy subvention yi dafay définir ligne éditoriale bi nga xam ni jeex na organe de presse parce que lenn moo fi nekk si la tu as ta chaîne bu tudd 313 digital mhm. da ngay def li ma neex xam nga ne euh, tey jii ñi doon jot mais am na ñoo xam ne ay chaîne YouTube la ñu yor comme ñun nii. Mhm. mais ñooñu xoolal millions yii ñu leen di jox. Mhm. donc millions yooyu ñun ñun ce travail remarquable qu'on a réussi def ko. Mhm. mais diggante temps bu yàgg. est-ce que bu fekkoon ne tey 313 digital. weer bu jot wala at bu jot dañ ko daan sànni benn 10 millions wala benn 20 millions. est-ce dinañ am fitu tey toog man li may wax ci kaw ci plateau bi ma am fitu wax mooy tey. une chaîne dafa am tey ji benn indépendance boo war a am. Hmm. léegi indépendance boobu nag boo demee ba nit ki am fu mu la téye mooy yow at bi dinaa la jox tant de million hmm. waaye nag sëñ bi am na loo xam ne sañoo kaa def de. et le temps cet exemple là am na chaîne de télévision ci réew mi yoo xamante ne. Hmm. am na tur yoo xam ne doo ko tudd. am na chaîne de télévision yoo xam ne da ngay ku nekk si réew mi koo xam ne bu doon def toj-toj. kenn du ko fa wax kenn du joxe information bi foofu. information dafay favorable ci moom nga jàllale ko. Mhm. bu favorable si moom doo ko jàllale yooyu yàgg na ci biir réew mi. vraiment. même même sax affaire bi daanaka du si chaîne euh, communautaire yi kase. mais yow pour même presse en ligne bi am na <laughs> pour yow lan bi <laughs> loolu pour la. moom du hasard bi sax am na yoo xam ni euh, daanaka ñu ngi si liste bi lu ci mel ni Seneweb million millions Presse Afrique million euh, millions Walfgroup point net 4 million Walf net 4 million Emedia 7 million Sunugal 24 11 millions Leeral point net 12 millions Dakaractu 24 millions Sénégo. un million Sénégal un million. Mhm. tuuti info. wala wala wala tout info. Mhm. Euh, quatre millions sans limite six million IGFM cinq million euh, PME Afrique. 6 millions Vibes People 5 millions 2 millions sur le terrain 1 million 500 moomoo jaaro mbir yi moom doy na waar de même ku leen xool daal sax foofu am na yeneen yoo xam ne daanaka kenn du leen gis mooy nettali point com bi 3 millions Mm-hmm. nettali point com yi genre yi fan la nekk. mooy sa benn waay rek boo xam ne da ñëw ne ko léegi kay utal chaîne bu ma jox la ci xaalis mu ne nga ne ko noo koy tuddee mu ne la nettali nga dem nettali 3 millions mais si la xam nga lu gën a ci information bi. Mm-hmm. sooy wax aide à la presse deux mille vingt trois. Mm-hmm. deux mille vingt trois boobu noonu. dafa am lu tax c'est-à-dire deux mille vingt trois bokkut ak deux mille vingt deux. bokkut ak deux mille vingt trois mooy moment bi nga xam ne moo gën a crucial. Hmm. ci xëccoo bi doxoon ci diggante ñi fi nekkoon ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo fi nekk tey. Hmm. mooy le président Macky Sall fal nañ ko 2012 ba 2019. Hmm. Euh, mu def premier mandat am. Euh, daal di dem élection ñoom ñu ne. gagné na élection yi ak cinquante huit virgule vingt sept pour cent. mu war a tàmbali deuxième mandat am dugg si deux mille vingt deux mille vingt et Uh-huh. Euh, ak Covid beeg ya nga ya ca xew ñu jàpp Ousmane Sonko askan wi génn xeex ak moom. Uh-huh. Euh, mu mu am nu mu demee. ñu jóge ci deux mille vingt et un président jékki-jékki dem préparé wu ñëw taxaw ne li fi amoon dootu fi amaat. dootu fi amaat waa léegi bi ñu tàmbalee. par exemple seen complot yeeg ñu doon def ak yooyu ñu Ousmane Sonko warul nekk candidat ak war nañ koo tëj kaso. Mhm. dafa am entreprise de presse yenn yi rôle bu ñu waroon jouer. ci euh, loolu liquidation boobu ñu bëggoon liquider le leader politique Ousmane Sonko. Mhm. léegi 2023 nag boo si duggee foofu mooy phase finale bi. Mhm. sëñ bi waa ji egg nañu ak moom phase finale fii da xëpp li nga am yépp ñu génn si benn yoon en fait. mais il faut ñu am participation bi. bien sûr léegi tax nag booy seetlu. 2023 boobu noonu dañuy génne xaalis même bu ñu daan jox ñetti nit dañuy yokk jox jox 10 personnes. ndax gis nañu 2022 ci état presse Walf amoon na 70 millions si je me mm. trompe pas. oui 2023 mu ñëw am 20 millions. dañoo yokk parce que 2023 boobu dafa déterminant mooy fii ak ay weer dañu dem ci élection présidentielle yu 2024 yi. Mm-hmm. Ousmane Sonko dañ ko bëgg a liquider mooy par exemple dossier Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. Mm-hmm. ngeen gëmloo Sénégalais yi que Ousmane Sonko du waxkatu dëgg dafa sosal Mame ngay xëy gis titrage yi Ousmane Sonko de dafa dem ci tribunal bi ñu ne ko joxeel preuve mu ne du joxe preuve di dof dof lu naan daa feebar ak daa def nii daa def nii daa def nii di gëm gëmloo nit ñi ne procès procès salas Ousmane Sonko mais yow dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko dinaa mës a dajale journaux yi ñoo teg ko fii di ko génne benn ba benn. am na ñaari titre yoo xam ne du ko mës fàtte. benn mooy ba nu dissoudre Pastef am na benn journal bu xëy def. benn cercueil. teg ni ici repose Pastef. ak les aveux de Ami Ami Dia. man ñaareel moom franchement mënu ma ko fàtte. oui des na yeneen ak yeneen ak yeneen. mais procès Ousmane Sonko boobu noonu tey mais am na ñoo xam ne dañ doon xëy def ay récits pornographiques. parce que Euh, dépeindre personalité bi mooy gëmloo sénégalais yi kii kat ngeen di jox bopp nii di xeex pour moom. Uh-huh. waa ji ngeen baal ma waaye waa ji <laughs> nit la koo xam ne nii ku xaw a doy waar la donc loolu moo nekkoon objectif bi objectif boobu nag il fallait mettre beaucoup d'argent. Uh-huh. ñun fekkee nañ ko si laa xoolal ni presse bi. doon traité information yi nit ñi am na ñoo xam ne dañu doon énervé bu dee gedd sax seetaan télé. Uh-huh. am na ñoo xam ne jusqu'ici tey jii duñ seetaan télé ndax. comportement bi yenn chaîne de télévision rawatina chaîne chaîne euh, classique yi comportement bi amoon. Uh-huh. donc désinformation chaque jour une journaux yi te xam nañ leen. Uh-huh. ñoo xam ne ñu ngi ci presse bi gis naa barki démb xaw ma démb. Uh-huh. Euh, Babacar Dione mu mu toog ci télé bi di expliquer du n'importe quoi ay président Diomaye fitna gi mu nekk ci biir palais wak yeneen ak yeneen on se connaît quoi dans ce pays. sëñ bi kooku gëmul dara. Babacar Dione. daa ko jënd gëmul dara dara su Sénégal suñu fi wax jaay une kooku moo tax. Mhm. kooku mooy xëy si réew mais dem di créer xeetu info yoo xam ne kenn xamul fan la ko teg. nga xam fu mu jógee. dem di xalamal Amadou Ba. une bi daal yow benn business nga ko bëgg def koi yow moom nañ lay na nga am euh, peut-être foo xam ne mën nga fa lijjanti sa bopp rek. à chaque mhm. fois nga ñëw toog euh, yëkkati ay ay ay affaire bon teg ko teg ko ci kaw <laughs> une yu doy waar. jëlal mhm. lii quotidien chaque jour saa boo xëyee. demal nga lire ko waa ji ban information lay joxe. Mhm. waxuma tey de démb ak bërki démb nañ dem xoolaat archive yi yow nit ñi xam nañ la xam nañ ne tu n'es pas sérieux mhm. amoo crédibilité ci biir dëkk bi. après on te laisse comme jour nga xëy lii quotidien le temps may wax duggal nga xool lan la lan la titre tey. tey jii lii quotidien lii nga xool mhm. chaque jour soo soo xëyee mais pour man loolu ça marche pas parce que c'est des gens qu'on connaît ay nit ñu xam lañu ci biir dëkk bi. sérieux wuñu bi benn affaire businessman Euh, ngeen baal ma si terme bi prostitution journalistique laa koy tuddee. Mhm. ku am xaalis bu mu mën a fay fay. nga defal ko li nga xam ne nii moom moo di moom moo di euh, titrage. Mhm. nekk di def du n'importe quoi dans ce pays après ñu bàyyi leen noonu quoi ñun ñu xëy mais sëñ bi loolu c'est pas du sérieux quoi. donc pour man euh, déglu naa le le ministre des euh, télécommunications. Uh-huh. ak euh, li nga xamante ne nii annoncé na ko muy ay mesures yoo xam ne war nañ ko jël mu jëm ci wàllu presse bi. Uh-huh. man ak yow ak 313 ak keneen ak keneen nañu fexe ba ñëpp daal di appliquer loolu à la à la règle. Uh-huh. parce que aussi c'est ça euh, la rupture même bu dee day métti si yow même bu dee man mesure bi. su ma ko naree appliquer ci sama bopp dafay diis mais naa nangu lii moom mooy yoon. bu ñu loolu rek gëm naa ne. Euh, solution war na mën a am mais il y a des gens yoo xam ne sérieux wuñu mhm. et je pense que suñ leen bàyyee itam mais ils vont trop loin quoi ci affaire yi nga xam ne ni moom lañ nekk di def mhm. nekk si biir dëkk bi lëmbee dëkk bi quoi te yow chaque jour si même xeetu pratique mhm. laajal journaliste yi nekk ci biir réew mi mais Pape Alé Niang laa souligné. bokk nañ si ñi gën a ñàkk sérieux ci biir réew mi nga gis koo xamante ne dafay futteeku dem si campagne ànd ak homme politique xeex pour homme politique bi ñu duma homme politique bi mu tourné ñëwaat yoraat journalam ñu mhm. léegi kooku c'est un journaliste daal boo xam ne dafa war a xëy di def ay titrage am ak yeneen ak yeneen mhm. donc je pense que loolu c'est pas du sérieux nit da am courage gis nga su ma demee ba jug tey jii ne dama bëgg a def politique. Uh-huh. damay jël sama casquette journaliste dem teg fële. Uh-huh. dem jàmmaarloo gooy politique yi ne leen acca ñëw leen ana mais Pape Djibril Fall tey bu toogee di wax ci politique. Uh-huh. ñëpp xam ne kii c'est un leader politique buy wax. mais lan moo gën a lâche ngay làqatu ci. costume politique bi. pour di dal ci kaw ay nit wala di leen bindal ay article wala di leen di di leen jéem a créer à travers des des plateaux de télévision. yow da ngaa faral Amadou Ba. Mhm. man su ma faraloon Amadou Ba si laa nga xam ne damay toog fii ne la moom laa faral. Mhm. après lu may wax ma wax ko quoi et je l'assume. Mhm. su may politique ma créé sama mouvement ne moom laa àndal moom laa faral. mais nga làqatu si ginnaaw benn journal di xëy suba Amadou Ba moo rafet. kii taasukat yi ni ni ñu ko doon ni ñu ko doon wooyee. il est bon il est gentil il donne de l'argent il donne de saa yow soo foo xëy tagg ko. keneen ku dul moom nga xëy xool noo ko yàqee en fait. Mhm. xëy suba du n'importe quoi nga koy créer président Ousmane Sonko dem na Rwanda dañ koo ñàkkal fayda. Mhm. dañ koo def nii dañ koo def nee. Mhm. Euh, nga ne non pré Ousmane Sonko la moo tax muy dem Rwanda alors que euh, Paul Kagame. Euh, quatrième mandat la doon def te moom moo doon xeex troisième mandat. alors que mais. constitution wu Rwanda moom moo permettre Paul Kagame. Ah. exclusivement moom Paul Kagame la ñu permettre mu euh, dem fii ba mille trente quatre. Mhm. seen constitution moo ko seen constitution moo leen ko permettre. Mhm. jaar ko par voie référendaire jaar ko ci li nga xamante ne nii moom moo di euh, ci assemblée nationale bi ñu voté ko unanimité mhm. jaar ci Sénat bi c'est-à-dire ñoom d'accord nañu ko loolu moo war a am seen dëkk. ñu bàyyi une certaine presse ñu xëy chaque jour di créer des mensonges. Mhm. ala mais à la fin ñun dañuy dañuy suulee sax ak seen xeetu fen yooyu nga xam ne moom la ñu dugal suñu bopp yi. vraiment donc qu'on se respecte et que mesures yi ñu ci war a ñu jël ko ci. très important alors euh, moom ci ci ci mbir moomu daanaka euh, lu ci gën a jaaxal sénégalais mooy réaction bi nga xam ni euh, Madiambal Diagne def na ko lii ko yaa ngi koy junj léegi. dinaa si dinaa si dikkaat mais bi mu gis